yàlla dafa dogal ñu nekk ay ndaw nekk ay entrepreneur di yëngu ci wàllu immobilier démb ñu tase toog waxtaan ñu ñu nekk ci département de Rufisque bi yëpp ñu toog waxtaan ne suba dañu war a am benn point de presse bu nu war a def fële ca impôt domaine bu Rufisque à notre grande surprise bi ñu demee fekk ñu tegal nu ay homme de tenue taxaw di nu xaar dañu dàq boo gisee ñi fi nekk ci mbooloo sax majeure partie bi dañu tasaaroo malheureusement moo tax ñu ñëw fii ci ville bi bëgg wax suñu soxla li nu naqari lenn la receveur bu impôt domaine ñun doon nekk ay ndaw sàccunu fenunu di liggéey. ku nekk ci immobilier nag xam ne da ngay soxla impôt domaine. mais boo xoolee bi mu fi ñëwee ba tey ñun ñi nekk ci département de Rufisque bi yëpp di liggéeyal président Macky Sall lépp luñ fa am comme këyit dañ koy bloqué te xamuñu lu tax li nu jaaxal nag su fekkee receveur day liggéey ak usmaan Sonko wala day jàppale opposition bi na ko wax nit ñi xam ko. ñun ay ndaw lan nekk derrière derrière président Macky Sall di liggéey depuis très longtemps soo gisee département de Rufisque li fi APR am day gën a néew lan moo ko waral homme d'affaires yi war a taxaw entrepreneur yi war a taxaw jàppale président Macky Sall amuñu doole parce que fan ko yaakaare suñ fa demee lan soxla woon duñ ko am kon ñoo ngi interpellé président Macky Sall le ministre Amadou Ba premier ministre ak Ismaïla Madior Fall mi nekk ci département bi lii fi ne suñ ko bàyyee

Dougal ko fa toog di xaar suñu kër mënoon na ko jot. c'est pas normal en tant que citoyen mais c'est pas normal en tant que entrepreneur mais c'est pas normal aussi c'est pas normal aussi en tant que koo xamante day jàppale le président Macky Sall parce que ñun. àndoon ma sàmm àndoon ma dem liguey mo ñu ñor gis nañ président di liguey ñu nek derrière di liguey damay préciser né bari na ay kilifa yo xamantene ne mënunoo mais lii may wax d'accord nañ ci. loolu am lii may wax d'accord nañ ci parce que ñoom moo ci sen seen kanam laa nekk seen ginnaaw laa nekk li wér wóor mooy combat bi dinañ ko continuer ba am gain de cause incha